asalaamaaleykum gars maa ngi leen di wax ngeen continuer di abonné si seen YouTube Diaw américain borom américain business ñu ñëw si taxawaayu Iran ci réew mi papa Iran ñu ngi lay ñaanal yàlla bu ñu wër nitu diine ah, borom xam-xam kuy jëf li yàlla digle na ñu jàpp Iran ndaw Sénégal dañu war a ànd maase di ko sargal di ko ñaanal yàlla chaque jour boo xëyee jullil ñaan yàlla ne Iran yàlla na fi yàgg parce moom mooy doxal diine. moom mooy doxal diine moom moo fi taxaw taxawaayu diine kilifa diine nii lay mel ni Iran di def lay def fu mu fekk coow daf koy fay fu mu fekk musiba fexe jàmm am fa loolu mooy nitu diine mais yéen ñu leen di jàpp ne yéen yéen a sàmm ji koy waali plainte na Maxtaar Sarr ngeen yéen ñi ci des ngeen te yéen ay ustaas ngeen ngeen génn ne nag kenn ku nekk def vidéo wax waali nekk góor jigéen nga pour lan taxawaay bi Iran am taxawaay boobu ngeen waroon a am bi Waly Diomaye ba plainte Makhtar Sarr yéen taxawaay bi ngeen waroon am mooy ngeen jéem a def médiation pour Waly retire plant bi comme ni ko Iran defee loolu mooy nitu diine dangay am xel di doxe sa xel te bàyyi ñaaw njort bi ci diggante doomu aadama yeeg sunu boroom gis nga nit ki ak su digganteem ak boroomam la am ñoom ñaar rek ñoo ko xam keneen mënu koo lijjanti te ngeen bàyyi nit ñi ngeen dëkkal sawara kuñ jóg ngeen ne ko yéen soo leen dee sawara ngeen jëm yéen yéen moomu leen diine ji diine ji dangeen ngeen da ngeen a jàng comme ni seen moroom yi jànge ah, jàngale leen comme ni ko seen moroom yi di jàngalee mais moo gën koo leen gis jàpp ne nitu sawara la loolu du àdduna su ngeen jàngee am xam-xam xam-xam bi da ngeen koy partager ak sénégalais yi nag ngeen koy partagé ngeen jàngal leen ko dawal yërmande nit su xamul ngeen ni ko lii kat baaxut lii waaye yéen nit su juumee sax ngeen ne nit sawara ga da ngay dem sawara pour lan yéen mu leen sawara moomu leen àjjana jàngale leen seen diine ci te doxee doon doon nitu diine comme ni ko Iran di defee. Iran mooy fekk ñaar ñu am problème mu fexe bañ nekk ci jàmm juboo nekk ci jàmm mu fekk mu fekk koo xamante ni dafa am problème mu fexe mu génn ci problème yooyu loolu mooy nitu diine. dangay fekk fu ja ay am nga fexe jàmm am fa foo xamante ne duñ laale nga fexe ñuy laale boole kook nekk ci tele bi di ñu jàngal suñu diine ay na imaam yu bari yoo xamante ne nii xamuñu woon sax julli farata yi ñaata la ñu ci bari iran leen jàngal seen diine kon tey ñun amuñu lu dul di ko sagal di ko ñaanal yàlla sénégalais yëpp bu ñu xëyee julli dañoo war a ñaan yàlla Iran yàgg fi te wér parce que mooy taxawaay bi bi mu war a taxaw la taxaw te kilifa yëpp nag comme Iran la ñu waroon a taxaw loolu mooy taxawaayu kilifa waaye kilifa goo xamante ne yow ñaar am nañ problème ngay génn naan def leen vidéo saaga diw wala def leen vidéo xas diw loolu du yëfu kilifa du yëfu nitu diine alxuraan boo ko jàngee da nga war a xam yow ki nga doon parce que alxuraan ci dënn du ay caaxaan te Iran boo ko gisee xam ne dëgg dëgg alxuraan a nekk ci dënn bi parce que nitu dëgg la ñu ngi koy ñaanal bu baax di ko ñaanal yàlla wér ak wérle yàgg fi lool ndaw te wér yàgg fi lool te wér ñun nag xam nañ fi nga yaroo bàyyi su lay ndaw xam nañ ko bu baax xam nañ ko xam ay doomam moo tax nii rek nga mën a mel ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax bàyyi Iran nga yàgg fi te wér gars yi continuer di abonné si seen YouTube Diaw Américain peace and love la gën a neex ci moom mooy yarin wa mooy yarin wa ak doxin ba ak doxin ba ki mooy sama siti